asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziara ni ñëw tey si benn secret bu am solo boo xam ne bayra lañ koy tuddee bayra góor ak jigéen bu ñu waxee bayra nag du yëfu caaxaan maanaam nit ki lépp lu muy yëngatu soxla soxla na si euh, mbëggeelu góor ak jigéen moo xam nga nekk jigéen di liggéey wala nga am si loo yëngatu euh, moo xam da ngaa nekk si place di liggéey wala nga yor si liggéeyu bopp soxla nga nit ñi bëgg la. dégg nga moo bu ñu waxee nit ñi nag góor mi ngi si jigéen mi ngi si góor tam nga yor yenn place yi wala nga yor yenn métier yi di ko liggéey wala nga nekk si benn entreprise wala fenn dafa liggéey soxla nga itam nit ñi bëgg lu muy góor ak jigéen kon mbëggeelu nit ñi dafa baax dana tax say mbir di mën a dox lépp loo mën a yëngatu si àddina moo xam da ngay jaay wala da ngay jënd wala da ngay liggéey wala lépp loo mën a métti daal soxla nga si nit ñi bëgg la kon loolu moo tax tey ñu jox leen secret bi nga xam ne dañ koy liggéey sa turu yonentu yàlla Muhammad euh, yonentu yàlla Yusufa lépp benn la sax waaw lépp benn la macha allah waaye yonentu yàlla Yuusufa moom lañ koy liggéey si turam euh, alayhi salaam moom nga xam ne macha allah yàlla may na ko taar may ko ñëpp bëgg ko kon tey secret boobu lañ leen di jox dégg nga euh, képp koo xam ne yaa ngi may déglu rek soo ko mënee nga def ko ndaxte nekk na mbir moo xam ne ñu bëri ñu may tawat di wax ne dañoo bëgg bayra dañoo bëgg ubbeekaay dañoo bëgg nangam nangam moom laa leen di faral di defal kon baatu Yuusuf ngay bind euh, gis nga bu njëkk bi Yuusuf bu njëkk bi dama kaa bind yaatar faa bi ginnaaw boo defee kun bisimilah rahmaani rahiim nga ubbi def allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim nga bind yusuf da koy bind juróom-ñaari yoon premier bi da nga koy bind juróom-ñaari yoon mais da ngay yaatal faa bi si biir faa bi nag juy na li naasi nga fay bind juy na li naasi ba mahab su ko defee nga bind ko ba muy juróom-ñaari yoon nga bindaa beneen yusuf boo xam ne tam juróom-ñaari yoon nga koy bind mais da ngay yaatal tam faa bi foofu wa azini fi naas nga fay bind ba xamee xin boobu juróom-ñaari yoon nga koy bind nga ñëwaat bu mujjee bi mooy si suuf nii da ngay bind Yusuf yaatal faa bi foofu nga bind fa alam nasrah laka sadrak rek ba mu jeex moom tam juróom-ñaari yoon yaakaar naa leer na comme ni nga ko gisee nii ni mu leen ko waxee noonu lañ koy defee leer na nañ amul dara lu ci lëndam su ko defee nga tëjee ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman fa nga xoj ko def ko saafara nga wut trois parfums yoo xam ne amul alcool nga def ko saafara bi nga di ko sangoo juróom-ñaari fan wala ñaar fukki fan ak benn mbir mu màgg la mbir mu ama am ama am solo la képp ku ko ñam moom te def ko wallaay la xasim da nga ñëw nga témoigné ndax lii du ay caaxaan turu yonentu la ak uh, aay yi ni ci biir macha allah ko lii ku am xam-xam dëgg am dégg-dégg boo ko déggee da nga xam ne lii mbir la kon yal na yàlla defuñu ci tawféex képp koo xam ne def nga ko rek yal na yàlla def ci tawféex yàlla defal la ci lépp loo xam ne yaa ngi koy bëgg di ko ci sàkku kon yal na yàlla aar ñu sàmm ñu fesal suñ ndox yi ak àddina fesal suñ xol ak yàlla yàlla jéggal ñu suñ bépp bàkkaar ak suñ bépp rëcc rëcc ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi yem fii ba subaa jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.